daanaka ci xàll bu yaato yaatu ci lañu ak accueillir ki nga xamante ni moo di Amadou Ba ak autorité locale yi nekk fii ci kafrina ñëpp nag ñëw nañu militant sympathisant ñoo génn àndandoo jàppandoo ngir jàppale ki nga xamante ni moo di seen candidat. le contrat de confiance bi war am ak peuple bi. ak moom ñun ñu jëf ci suñu wàll. dañoo def député suppléant bu jigleen ñu ne nañ indi candidat suppléant le Sénégal ne mérite pas ça président de la République clé de voûte de toutes les institutions ñu ne demal wat sa équipe bi. jiite réew dafa bëri pouvoir kuy mer. di xundu di fayku wante buñ la ko joxee di yàq réew ma. Amadou Ba jël kàddu wax ci li nga xamante ni moo soxal waay laago yi. sunu mbokk yi nga xam ne dañuy dund ak handicap. nañu xam ni ci réew mi lañu bokk kenn ëppalewu leen ci du doon ci jàng du doon ci liggéey discrimination positive dinañ ko def ci recrutement pour permettre aux personnes vivant avec un handicap parce que ces personnes ont plus de chance de devenir pauvres kon ñooñu foog ñu jox leen bonus. beneen catégorie bu nekk ci société bi moom boole na ko ci discours am moo di jigéen ñi. mais li ma bëgg mooy jigéen ñi am ci cër émigré yi am ci cër bu jigéen ñi amee cër kon fañ leen daan lebalee deux cent mille trois cent mille bu nekkee tam foofu nga tàmbalee. mën nañu dem ak yow ba 1 million wala 2 millions te du yàqal banque bi dara wala 3 millions wala cinq millions wala lu ko ëpp. loolu buñ ko defee coono ak ndóol dina wàññeeku bu baax a baax a baax a baax. am naay woote ngir ñëpp ñëw. su doon suñ sago ñun Benno Bokk Yaakaar Karim Wade day bokk su doon suñu sago Cheikh Tidiane Gadio day bokk. su doon suñ sago Decroix day bokk. ndaje politik bi nag nga xamante ni xumboon na lool. leader politik yëpp yu nekk ci Kaffrine ñoo ñëwoon di way di fecc ngir Amadou Ba mën a gagné élection yi ci 24 mars. ci digg bëccëg gi ay jàmmarloo amoon na diggante ñu nekk ci nguur gi ak yu nekk ci opposition bi.